li ñu fi dajale tey mooy dañu am benn entrepreneur boo xam ni euh, CPM moo ko formé CP may fàttali ni ville de Dakar la nekk ñun profito dajale fi dajaloo fi waxtaan ak jigéen ñi parce que gis ngeen ni jigéen ñi pratiquement ñoom ñoo fi ëpp ndax jigéen ñi dañu am benn programme bu am solo boo xam ne dañ leen koy jox muy former former leen renforcer leen jàppale leen si benn fonds boo xam ni foo dem lañ ko loger en partenariat ak suñu mutuelle épargne de crédit mais tey prétexte bi mooy suñu entrepreneur bi nga xam ni moo remporté prix Sénégal Nous avons ko prix entrepreneuriat et innovation de la francophonie 600 candidatures à nañ ko C'est Afrique bi le mais euh, problème, Cheikh Ahmed Tidiane Deme je félicite encore moi moo remporté te bu remporté ville de Dakar m'a gagné mais bu ville de Dakar remporté également c'est tout le Sénégal qui est honoré donc ce que nous fi fait. Nous ñu profité de di waxtaan jigéen yi ici, monsieur le maire li pour jàppale leen ko ndax dafa ni moom FODEM dafa bëgg a renforcer visibilité FODEM mais dafa bëgg a renforcer moyen FODEM dafa bëgg a jàppale jigéen ndax ku jàppale jigéen jàppale nga àdduna bi yëpp dina jàppale jigéen yi dina jàppale xale yi tamit si incubateur bi tax suuf dañu nar a teg benn programme boo xam ni hub de l' entrepreneuriat la tudd bu ñu tegee hub de l' entrepreneuriat dina ci am école des entrepreneurs dina am programme yu bëri yoo xam ne dañuy renforcer les jeunes entrepreneurs au niveau de Dakar. boo dëkkee ndakaar nga am un programme un projet dañ lay jàppale dañ lay jàppale au niveau de FODEM dañ lay former au niveau de la CPM e di si féliciter nag euh, suñu partenaire bu stratégique muy na bu Amica mu nekk ville de Montréal parce que boo tegee benn benn structure il faut nga am ay partenaires te recherche de partenaires à l'international yombul mais bu Amica bi ko association des maires francophones di fàttali moom tamit daf ñuy jàppale bu baax a baax a baax tegee moom la ñu jël def ko focal mi ngi def lu mu mën kéemtalaay kàttam di ñu utal ay partenaires te defe naa tout récemment rek ñëw ngeen fi ñu signé un protocole d'entente ak logique les offices logiques ñoom dañ fi taxaw ni dañuy renforcer xale yi pour ñuy dem Québec di ñëw Dakar teg ci seen disposition tamit des moyens yoo xam ne assez conséquents dans la formation et dans l'appui financier donc Seynabou Amika moo nekk nii moom sama wet moom it mi ngi ñuy jàppale ci ci programme boobu ci programme de formation et de recherche de partenaires je pense que mën nañ ko may mu sànni si ay kàddu. au-delà au for de ça euh, moom ay ambition mu bëri na Fodem li ñu ñaan rek mooy yàlla may ñu ñu fekkee ko tal ko mën ko àggale mais li ñu teg moom commencé woon ko dañ ko àggale te maire li mu wax mooy li ngeen yore dafa tuuti. te dama bëgg ngeen yokk ko bëgg ngeen renforcer seen visibilité ndax limi wax yépp mooy humain lay teg man man bu may former nit lay former nit lay jàppale nit lay financer donc il place l'humain au cœur de son programme te loolu defe naa mooy économie sociale et solidaire donc si loolu la ñu nar a yëngu gën ko yokk nag li ñu touché woon daaw ñu ñu doubler ko tripler ko wala quoi di euh, lu nag bu baax a baax a baax euh, jotaay bi di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw di félicité tamit euh, le forum len di jaajëfee bu baax a baax di remercier tamit euh, le bureau municipal ak le conseil municipal yu pour euh, fekk ci tey ndaje bi xanaa lu may wax rek ci gàttal lu ñu fi indi ñun moy politique waxtaan ak mbokk yi am lu ñu dig mbokk yi ba mbokk yi gis ci seen bopp nangu ñu wóolu pour juróomi at moo tax ba ma ñëwee ma wax leen euh, ne leen nañu def suñu kéem kàttan ba lii di doomu aadama ñu mën ko fonk li di doomu aadama ñu mën ko jox place ci yéene bu ñu am ci Dakar Moi, le tubaab ramener l'humain au cœur de nos politiques au cœur de nos urgences Moi, le revaloriser le capital humain waaye sunu partenariat ci ay euh, ay activités yu yu yu ponctuelles la mais sunu partenaire association internationale des maires francophones nous ñu financé permettre ñu tey ñu jàppale 50 euh, jeunes entrepreneurs former les ba tey lancer am si ñu entreprise am si gagné ay prix Nous ñu souligné le souligner prix de Cheikh Ahmed Tidiane il am y' a plus de 600 jeunes candidats yu postulé té mom mu bokk si ñu jël raw gaddu bi donc man sama lu may wax euh, moy euh, dama bëgg remercier madame Samb parce que bo nekkee àll bo gisé lu baax da nga koy yéné sa réew mais tout le temps c'est pas toujours facile ngay liguey ak nga nek feulé ñom ñu nek fi mais madame Samb dafa neex a liggéeyal équipe am aussi donc mu yombalal ñu yëpp ba nga xamanteni nit ku la ji lu bax rek lu bax ngay def donc si lolu la ñu nekk di len jappelé pour ñu am financement parce que ñun ville ba ville de Montréal amuñu financement mais xam nañu ay organisation yu ko am donc dañ leen di jappelé pour ñu mëna am financement bobu jappelé xale Dakar

waa Canada tam mën nañu ñëw fii jàng si parce que euh, francophonie mondialisation da ngay da ngay jàng si si nit nit ki tam jàng si yow. mais yëg du lenn du contentement bi nga xamné ni dama koy delloo wa CPM ñi nga xamné ñom ñoom accompagner depuis 2019 gëm ñu former ñu coaché ñu donc ba tay ñu mëna taxaw fu nek di participer si ay concours mo xam ay concours national wala inter international ba pare aussi di remporter li nga xamné mom moy ay euh, lauréat donc ñukkal bi yëpp c'est la CPM parce que tay fi ma fi ma mënta yegg rek ñom la parce que au début idée kese la woon yombul won même ma propre famille ne croyait ne croyait pas en moi mais j'ai trouvé une CPM qui est devenue une une deuxième famille bi nga xam ne ni dañoo gëm projet bi gëm jusqu'à ce que ñu yegg fi ñu yegg. bon li ma leen bëgg wax rek moy que d'abord bu ñu idée de projet ñu gëm ko donc euh, idée yow ya koy ñëk gëm en fait parce que man idée bi su fekkonte ne dama basé wu si samay wa kër rek konoon du ma doon yegg si parce que bi muy njëkk am idée bi sama yaay sa boppam gëmu ko donc elle me disait tout le temps bàyyi li ngay def ni nga dem wuti liggéey moo gën ngay sonna sa bop des fois kër gala do nek di defal di mélanger daf ma daan jëppi très sincèrement mais tu vois dama gëm li ma nek gëm ni li mëna ci réussir té mëna ci avancer donc message yi mom lay jox nga xam mom may jeune jeunes yi aussi tamit comme ni ko waa CPM waxee euh, logique bi nga aussi un partenaire là aussi dañoo accompagner c'est bien bourse bi nga xam ne ni daf ñu permettre ñu mën a fay frais yi nga xam ne tey euh, suñu innovation bi apporté nañ ko ñu bëggoon ko protéger par OAPI donc tey bourse yooyu moment nous ñu permettre tey ñu mën ko ñu mën ko maanaam tey ñu mën a am suñu suñu brevet accompagner noonu tamit si li nga xam euh, d'une somme de 1 million de francs CFA cette du dara par rapport ak li nga xam ne ni leen soxla mais quand même ça nous a permis à tester notre production à à démarré peu ba paré ñum tamit ba tey ñi ngi fi diñu accompagner pour yeneen partenaires yi nga xam ne ñi ngi fi muy seen partenaire technique wala financier pour développer le projet pour mu gën a jëm kanam